ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكى جلدين خمنا nga xam أجيان ñoo bokk دي ak yéen ci jataay wala mépp mépp mbokk moo xam ne teewoo ci jataay bi ca ngay siifur waxtaan yi ñuy def foo mën a nekk moo xam ci télé bi wala ci internet bi la ñu ngi lay nuyu nuyub lislaam bu sell boobu di am mbégte lool di ñëwaat ak yéen ci jataay xam-xam yi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma baaxoo nañ ko seq ak yéen ba weer wi tàmbalee ba léegi bis bu set ñu jël benn tomb boo xam ne bu yitteel la lool bu nit ñi soxla ci seen wàllu diine ak ci seen wàllu àdduna ngir ñu bokk jàngat ngir am yaakaar guñ yaakaar ne nit ñi dañ ci mën a jariñoo doon ab yóbbul bu nit ñi mën a yóbbuloo ci silsilab wala càlla wala waxtaan yooyu nag ci la ñuy continuer ak yéen tey tomb tànn ci tomb bu am solo lool ñukoy koy tudde xuquuqu raaya ca moy àqi kiñ yilif wala yelef yi nga xamne mom la kiñ yilif am xam ngeen ki yilif dafa am ay àq ay yelef yo xam dañ ko ko wara jox ba mat seuk waye ñi ñu yilif momit wala kiñ yilif ak yilif ga nu mëna démé momit dafa am ay àq ak yelef yo xamne daf ko am ñu war ko ko delloo war ko ko jox tam bobo mu yakana bu yitteel jamono la moom lañu war a séq ak tey seen gan gi nekk sama wetu càmmooñ ñu ko sëriñ Cheikh Mbacke Niang doon koo xam ne ganiyun ani taarif fi hada al makaan bil xusuus jataay bi yaakaar na aajibut ñu ko fay xamleeti ndax ñu bari dégg nañ ko ci yëngatoon ci xam-xam ak ci jàngale ak ci gëstu di doomi ba tey al allaama cheikh cheikh Mouhamadul Mahmoud Niang mi nga xam ne moom it du ku ñu xamle moom ci béréb bii kon sëñ Cheikh Mbacke Niang moomu tey mooy ki nga xam ne mën nañu war a seq jataay bi ak moom ni ma ko waxee sànq mooy doomi dëkk bi di jàngkat di jàngalekat doon ba tey mu fattish tarbawi maanaa euh, inspecteur la ci euh, région Diourbel nekk ci IA bi ñuy say di saytu lépp loo xam dafa jëm ci langue arabe wala njàngum arabe ak diine lu aju ci gox bii ñu nekk muy joxub Diourbel kon yaakaar naa kooku buñ ko woowee ci jataay bi ngir mu fas yéene ñu defal tomb bi nga xam ne moom la mbooloo mi sàkku yaakaar naa jox nañ mbir mi ku ko man kon duma guddal incha allah ci lu aju ci thème bi bu ñëwee incha allah rek ñu ànd ko teewlu ak diglu ndax ñu mën cee jariñu di yàlla subhanahu wa mu jàppandal ko defal ko leeru làmmiñ ubbi ubbi ubbi dënnam ba lépp loo xam ne am na yéen a jàllale ko yàlla borom subhanahu wa taala eh, dimbale ko ca ca it képp koo xam ne yaa ngi siifur waxtaan tamit yàlla jariñ la ci ndax loolu rek mooy moo mooy moo mooy mooy jubluwaay bi ca mooy dégg lu baax di ko jariñoo kon sëriñ bi fal tatafaddal fadilatuka mashkura jërëjëf ci kàddu yu rafet yi te matale bismillahi rahmaani rahim wasalaatu salaam ala sayidi almursalin wa ala alihi wa saxaabatihi alkiram wa man iqtada bi hadihim ila yawmi ddin mbokk yi ñu bokkal jotaay bi ànd ci waxtaan wi moo xam ñi ngi teew ci barab bi wala ñi ngi ci yeneen barab di ànd ak ñun jaare ko ci buumu jokkukaay yu bees yi di rajo yeeg télévision yeeg site internet yi ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar it tey ndokkeel mbokk yi nga xamante ni ñoo baaxoo amal jotaay bi at mu jot di daairatu muqaddamatul xidma ci njiital sunu mag di sëriñ Afee Buso ñuy rafetlu bu baax a baax liggéey bi li fi at yi weesu ak yi weesu ci ren ji yépp ñoo ngi koy rafetlu muy ay ndaw yu yaakaaru di taxawul liggéey bu mel ni di ko def ci barab bu yaakaaru bii ñu nekk nga xamante ni ku tedd kii ci suñu pegg di Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi mu taxawalee dëkk bi fii moo nekkoon këram gu njëkk te sëriñ Mbàkke Buso tamit di wax ni fii moo nekk këram gu mujj kon fii ñu ko denc moo nekkoon këram gu njëkk fala mbaarum ngeer moomu mu defoon ba muy taxawal dëkk bi foofu la nekkoon ginnaaw bi mu fi bàyyi ko tamit foofu lañ ko denc looloo tax sëriñ Mbàkke Buso di wax ni fii moo nekk këram gu njëkk fii moo nekk këram gu mujj barab bu mel non nak ku fi nek di fi waxtane war nga am yeg yeg bi war nga am warma ji war nga am yene ju rafet ci luy defar ndax ku tedd ki tedd fi dundam gep lolo ko taxono a ñi ñiy it kaddu gi di bàyyeekoo ci barab bi war nañuy teewal barab bi ci seeni xel ak ci seeni xol ba wax ci lu ci lu ci jup ñu jël ko jariño lu ci juunu ñu jëggal ko boroom ca ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñu ñépp kon bu fekkee ne ay ndaw yu mel noonu ñoo taxawu lii ca yoonu murit ba muy taxaw ka ko taxawaloon muy ko tedd ki waxambaane la woon amoon loo xamante ni ma tutoon sax fanweeri at wax nañ ni ñaar fukki at ak juróom-ñett la amoon bu muy wax waxam ju mag jooju waxam ju am solo jooju ca Mbàkke Kajoor te ñenn ñi japp ni ci la yoonu murid judo fan fanweeri atam sax matut mbollem kangam yi and ak moom tamit ci njëlbeen bi buñ sété seeni at ñi ci fan fanweer ak bari wul ñenn ñee ko magoon tuuti ñenn ñee ko faré won ak ndaw te bari ni ñu ràññeeku lool ci yoon wi ñoo ko ak ndaw te nañ ci ñi kon loolu manes na wax ni te loolu manes na ci tuddu serigne mbacke Buso manes na ci tuddu serigne Ahmad Ndumbe mbacke mënees na ci tudd euh, sëriñ Ndam Abdourahman Lo mi nga xam ne maas la woon ci sëriñ bi sëriñ Daaru Xasan Njaay euh, sëriñ Ibrahima euh, Saar Njaay ak ñeneen ak ñeneen ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp ñu leen xoolee ñi ci amoon fanweeri at ak juróom jamono bi mbir mi taxaw bëriwutoon ay benn benn lañu woon ay benn benn kon yoon wi mën nañoo wax yoonu ndaw la kon buñ demee téeméeri at yu tegal ginnaaw bi ay ndaw taxaw ci barab bii di ci def liggéey bu am solo bi duñu mën lu dul rafet ko rafetlu ko yaa mu am yaakaar lool nag ba noppi ñu leen di ñaan nag ñu leen di ñaanal yàlla musal leen ci li yàq mbooloo muy gis sa bopp ci liggéey bi wala bëgg àddina bëgg feeñ ak dugal seytaane man cee bañ a dugal loxoom di ko ñaanal tamit mboolem ndaw ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci eh, tool bi ci nekk ci yeneen waar tomb bi nga xamante ni moom lañu ñu santoon ñu weccante ci xalaat ak mbokk yi mooy àqi ñi ñu jiite ci ñi leen jiite muy xuququ raaya ñi ñu jiite àq yi ñu am ci ñi leen jiite njiit yi nag ay dafa am ay tolluwaay yu wuute ki jiite njabootam njiit la ki jiite jumaa ji jàkka ji njiit la ki jiite aw yoon ci wàllu dundiinu lislaam muy tariqa njiit la ki jiite am réew njiit la njiit yooyu yépp nag kenn ku ci nekk fu la fi yàlla mën a teg ña nekk ci sa am na ay àq yu ñu am ci yow ak yelleef yoo xam ne warees na koo sàmmonteel loolu lañ ma sant ma weccante ci xalaat ak mbokk yi loolu nag ku wax àq ak yelleef ca safaan ba mooy warteef kon àq ju nekk warteef mooy jàkkaarloog moom warteefu wu ne àq mooy jàkkaarloog moom kon ma ne soon nañoo wax it ci warteefu ki jiitu ca ñamu jiite waaye loolu beneen tomb la boo xam ne dañ koo jox meneen mbokk ci niñ ko tëralee ren xam nga ni mbokk yi ci seenu xereñ macha allah dañoo fob àq yi lislaam saxal def ko ay pàcc pàccal ñiy topp waxtaan wi ñëpp seetlu nañ ko bi ci bi ma ci mujj bi ci dégg naa fi barki démb ak ya nga xam ne mala yi moom lañu am mu am ay sew-sew yu doy waar yu nekk ci biir yoo xamante ni euh, ñëpp mën a mën nañ ko bañ a xam kon loolu lañ ma sant incha allah ma war cee xalaat ak yéen ni ko xamee ni ñëpp mooy doomu aadama ni ko yàlla binde mënulut boppam lépp mënulut boppam lépp dafa am ay soxla ci dund gi bëgg muy faju ca faju googe ngir mu am faw mu dem ci moroomi doomu aadamaam mooy ne kon munta ñàkk li ñu wax société aw askan am ñuy jëflante ci seeni biir di dimbalante ci seeni biir léeg-léeg bëgg-bëgg yi juyoo léeg-léeg ñàkk déggoo am ak yeneen yu ak yeneen yu ni mel ngir jàmm di am nag faaw ay nit bu ñu dajoo daje wara jëflante faw nosu am am ku ñu teg ca bopp ba am ñu nekk ci ginnaawam ñu nekk ci ginnaaw gi nag ñoom lañuy ñuy waxtaane seeni àq ak seeni yelleef solo su loolu am nag moo tax lislaam def li ñuy wax al imaam al uzma wala al wilaaya al uzma mooy njiit lu mag jiite am réew lislaam defu ko mu nekk ponk ci diine ji waaye def na ko mu nekk lenn ci warteef yi ëpp solo yi jullit ñu war a yittewoo war koo taxawu ndax bu amul muy njiit bu amul caaxaan ak ñàkk nosu ak fawda li ñuy wax fawda anarchie mooy am ci askan wi looloo tax dafa war a am ngir diine taxaw ngir àdduna jag nit ñi nag ku ci laaj ak nguur bu fekkee ne jullit la daf ko war a laaj ngir jàpp ni aw yoon la wum mën a liggéeyale diine ngir jàpp ne aw yoon la ngir won wum mën a liggéeyale aw askanam jaare ci jege boroomam loolu moo war a tax ñu war a laa laaj ak kilifteef njiit waaye wurta doon wut aw tur walla wut ab am-am loolu nag boo amee diine dana jag te mel na mu war a mel diine dana jag diine dana taxaw àdduna yit gis na ci mën a jariñu du ma wax dana jag ndax jagal ko jafe na waaye gis na ci mën a jariñu xëy na loolu tamit yàlla santaane na ko ci biir alquranul karim wax yaa ayuha alladina amanu atiu allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويلا ين نجم يالا نجن توب يالا نجن توب ويت يوننتبي عليه الصلاة والسلام توب سين جيت سين كلفة سوين أمي دارتك بوته نجن دلو تنون يالا تيالا دلو تيوننتم دلو تنيلن جيته ngir mën a lijjante jafe-jafe yooyu loolu nag bu fekkee ne gëm ngeen yàlla gëm ni bis penc dana ñëw kenn ku nañu gaaralaat ko ay jëfam bu boobaa war ngeen koo def njiit yonente bi aleyhi salaatu wasalaam fonk ko lool ba wax ni ngir ak mën a ñàkkam ba wax ni ñett suñu àndoon génn di tukki bala ñoo dem nañ fab kenn teg ko ci kanam ni ko yoway jiite yoon wi yoway sunu njiit ci yoon wi ñett nit bu ñu tukki bala ñoo dem nañ tok waxtaan ni kenn yaway jité yaway jité yoon ida kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadukum ahadahum kon lolu day wone solo simu am mu dal waxat ne la yahillu li thalathatin yakununa bi fulatin min al ard illa amaru alayhim ahadahum du dagan du jaadu du yell ci ñetti nit lu ñu néew néew ñu soobu aw yoon di dem di tukki ca jiitaluñ kenn ci ñoom kon loolu day wane solo su njiit am ak ak ak mën a ñàkkam ci dund gi loolu moo tax nag euh, ndegam dañ ñoo dénkoon rek ñu wax ci benn pàcc bi aju ci ñi ñu jiite ci loolu rek lañuy taxaw waaye du tee ka jiite tamit am na ay àq ak yelleef ñàkkul kiñ ko dénkoon dana ci waxtaan su fekkee sax defu ko ba noppi àq ak yelleefu ñi ñi ñiñ jiite mooy xuquuqu raaya bari na lool suñ ci duggee ci detaay yi dugg ci yu sew sewaan yi waaye dana dañuy jël yi ci gën a fés rek nga xam ne suñ ko lijjantee suñ sàmmoonteek moom rek yi ci des yépp mën a jag bi ci njëkk mooy nit ñi nga xamante ni dañ leen a jiite am nañ àq ca ka jiite mu amal ak maandute ak yamoo ci jëflante gi muy jëflante ak ñoom loolu kenn la bu ama am solo bu munta ñàkk ci néegu néeg bii ñuy tudde al imaam al uzma muy njiit maandu nag yàlla da ko fonk lool ba def ko mu nekk ci lenn ci ay turam al aadil mboolem charte réew yi dëppook jamono yépp saxal nañ ko ci seeni li ñuy tuddee charte réew mooy ay desatir amu ci kenn ku ci wuute xëy na nag nañuy amale maandute googa nañuy amale yemoo gi mën naa wuute kem ni mbooloo yi wuute kem ni réew yi wuute waaye ñoom ñépp nangu ni ak maandute moom war naa am fu fu ay nit nekk maandute nag buñ koy wax ci ñaari mbir lay gën a feeñ muy jëf ak fay mooy bu maandute amee jëf ju ne dafa war a dëppoog wala fay gu ne dafa war a dëppoog jëfam bu jëf ja dee jëf ju baax charte yee ca war a daja daja ca fay ga mën a nekk lu dul lu baax bu jëf ja dee jëfu ak charte ya war a daja daja ca fay ga munta nekk lu dul bu fekkee ne maandute am na fay ga munta nekk lu dul jëf ju dëppoog jëfi safaan ah, fay gu dëppoog jëfi safaan ci lu dul ngay xool ki ko def kan la ban pas-pas la am ban melokaan la yor ci yaramam ku ñuul la walla ku weex la góor la walla jigéen la fan la dëkk ban gox la dëkk ak yeneen ak yeneen ban kàllaama wan askan yooyu yépp di su ko ci xool ak maandute dañ koo war a amal ci biir askan wi te ñépp nag yam ci kenn ku ne lum yeyoo ñu jox ko ko lum yeyoo wut duñu ko ko jox loolu la yàlla sant yonentam sant ko tamit jullit ñi topp ci ginnaawam wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl saa bu ngeen dee atte diggante nit ñi na ngeen ko def la ci maandute wax ni it moom yàlla jëmale ko ci jullit ñi ni la ñàkk déggoo wala mere nit bu mu dox seen digg ak maandu ndax maandukat moo gën a jege ragal yàlla يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كون لو مانا دوخ سديغ نيت سو فكنا دا نيك كليفا سو ديمي باي عمل باي جف باي جوخه باي جفلنتي غالا نانتي سامنتك maandute ca bañ cee xool yi leneen lu dut loolu tooñ yàlla da ko bañ lool yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko ci xadiisul qudsi yàlla di wax ni man tey araamal naa tooñ ci sama jëmm araamal naa ko it ci seen diggante buleen leen tooñante mukk yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharrama fala tazaalamu kon maandute ak moytu tooñ ci yi gën a am solo ci yi jiit war a bàyyi xel yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ni njiit lu maandu benn bisam bu mu jëfe ak maanduteem moo gën jaamu yàlla kenn nit juróom benn fukki at yow yowmun min imaamin aadilin afdalu min ibadati sittina sana jaamu yàlla ak doomu aadama juróom benn fukki at lenn njiit lu maandu ci benn bis rekk moo ko gën ndax njariñ la mooy gën a yaatu kon gis ngeen fi yàlla teg ak maandu ak nim ko fonke yonente bi dellu wax ni ki gën ci mbindeef yi mooy njiit lu maandu waaye ki yàlla gën sib ci mbindeef yi mooy njiit lu maanduwul kuy tooñ ahabul xalqi ila llahi imaamun aadil wa abraduhum ilayhi imaamun jaayir kon gis nga kem fi la yàllay teg ci wàccuwaay noonu la say jëf di rëye bu dee lu baax noonu lay doyewaar tamit bu dee safaan la bu ñuy wax maandu nag fu ñu toll dañ koy lënkaleeg yamoo mooy almusaawaat yamoo nag jubluwuñ ci ñépp yam ay cër ndax ni ko wolof di waxe bu ñépp yamoon ay cër am ñu gedd seen bos waaye liñ ci jublu mooy kenn ku ne la mu yeyoo rek ñu jox ko ko ca bañ cee seet leneen ñu xam ni tamit nit du gën moroomum nitam cib juddu ci lislaam nit munta gën moroomum nitam cib juddu ci ni rek ci askan sàngam laa bokk barab sangam la judo sante sangam la yor nga japp ni yaa gën nit ñi lolu mom ku ko tamit ya ko wa ya yalla mom lim saxal moy ni nit judo juddoom rek lu moro gën moroomi nitam way bi mu wacce nak ngir nit mëna a gën moroomu nitam moy ak ragal yalla ak jëf ju baax jëf ju baax mën na nek jaamu yalla mën na nek jëflante waye ragal yalla dal ak jëf ju baax jikko ju rafet lolu moy mëna tax nit gën moroomam nitam ci natteenu l'islam nit ñi nangu nañ ko wala nanguwuñ ko waaye yàlla mi du juum mi dara umpun mi dara tawul moom moom loolu la jàpp muy ab nattuwaayam ku ni mel rek ak fu la nit ñi mën a teg tamit nit ñaa la fa teg waaye yàlla moom jàpp na li muy jàpp su ko defee yemoo googu nag di gën a fës ci nekk gi ñu nekk doomu aadama ñu ñëpp ci yam ak ni ñu yàlla bindee bindiin bi mën naa wóote ci diggante góor ak jigéen waaye biñ xasee ba nekk doomu aadama loolu moom ci wàllu askan ñun ñëpp ci yem ñoo bokk benn maam ñun ñëpp ay mbokk lañ wàll boo demee ba taxaw ci kanam yoon it ñëpp a war a yem melokaanu yaram pas-pas wala yeneen ak yeneen wurta tax ñàkk a war faa am kon loolu it warees na ko bàyyi xel bu baax a baax su ko defee ñu bañ a nax sunu bopp xam ni yàlla mooy fay moom dara ump ko mu ngi topp jëf yépp jëf yëpp tamit ñu ngi koy denc kon eh, la nit ñi jàppe mbir yi mën naa bañ a am solo lool yàlla nee na wuute gi ma leen wuutali ci wàllu bindiin ci nekk ñi nekk góor ñi nekk jigéen def leen ay giir yu wuute na ngeen xam ne ci jublu mooy ngeen jéem a jegeente ngeen a jéem a xamante ngeen a jéem a dimbalante ngeen a jéem a mottalante te bu kenn jàpp ni yaa gën sa moroom ngir sa melokaan ngir sa wala ngir sa judd yaa ayyuhan nas إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير كون يالا بن خمان لول رك نونو لا جابي مبري مونيت كيب كو جيف لو باخ تا باس باس بو سيل لال كو نا خامني دانا كو فاي جيفم جو باخ دوجو تا دانا كو ماي تيرانغي تامت في تي ادنا ولا اك تي الاخره من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كون يالا فوف لا تكبري لولو تخان نك يالا يوني وون مو يونت بي عليه الصلاه والسلام دون تي جيم كم تولاي كاتان نك ديكو دوندال دي دا عمل ماندو تي كاو سوف دي تي يار ني نيكون تي رونا مو اي صحابه ا أه با تخ daawut nangu kenn kuy jéem a def li ñuy wax intervention maanaam bu yoon demee bay àtte yonent bi alayhi salaatu wasalaam daawut nangu kenn di ca dugal loxoom kenn di jéem a tinu ci àq yi nga xam ne yàlla moo ko am muy amal maandute ci kaw suuf am na benn bis muy àtte ku ñu wax usaamatu bnu zeyd ñëw di tinu di tinul kañ doon àtte keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mer ba ñu fa nekkoon dañoo tiit mu ne ko ndax yow yoway ñëw ci li yàlla tëral ñu war koo amal nga di ci jéem a dugal sa kàddu di ci jéem a tinu mer lool ba mu feeñ ca kanam ga ak mu doon baax baax ak li lim laabir laabir ak lim am sago sago keroog dafa mer ba ñépp xam ko mu daldi waat daal ne waat naa ci yàlla ne waat naa ci yàlla ne sama doom ji ñuy tudde Fatima bu jëloon alali jàmbur jum moomut ci lu dul ngërëmam ma dagg loxoom ni may daggee loxo kenn ku ne ci yéen kon gis nga ko moom wàllu askan wàllu njaboot musta dox digganteem ak amal yoon ak ak màndutu ci kaw suuf kooku nag mooy sunu royuwaay ci lépp kon bu ñëwee ba ci jamono ji ñuy wax indépendance de la justice naan justice bi am na màndute justice bi am na indépendance moo moom boppam loolu kàddu yu rafet la waaye bëggoon nañ lool mu doon luñ mën a jëmmal suñ ko dee wax kàddu yi rafet lool ba noppi nit ñi di ci sikk sàkka loolu day doy waar indépendance de la justice justice dafa war a indépendante dafa war a moom boppam bis bu demee bay àtte kenn war cee bañ a dugal loxoom loolu mooy li jaadu te loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale te loolu it la def ci dundam loolu it la yar ñi nekkoon ak ñi àndoon ak moom te loolu mooy indi dalu xel ci biir askan wi moo tax abou bakrin bañ koy door a fal ca discours bi mu njëkk a def waxtaan bi mu njëkk a def ak askan wi bokk na ca lam ca waxoon ni li feeg maa ngi topp yàlla dee leen ma topp saa bu ma ko noppee topp war waratu leen maa topp fa atiuni ma ataatullah daan nag saa bu ma juumee na ngeen ma jubbanti loolu danañ ci dikkaat saa bu ma juumee na ngeen ma jubbanti daan ne ki jàpp ni mooy borom doole ngir am amam wala juddoom na jàpp ni tekkiwul dara ci man li feek mu ngi tooñ mbooloo mi di jël seen àq ba keroog may jël àqi doomu aadama yi ci moom di ko delloo seeni borom nit kiy nuru lu xeebu lool nuru ku néew doole lool na jàpp ni mooy ki ma fullaal man ki ma jox Euh, ki ma jox ki ki ki mooy ki ma fullaal mooy ki am kàttan ci man li fee joxuma ko àqam ci maandute googu nag yàlla daal di wax ni ci yàlla mën yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni askan wii muy askanu jullit ñi li fee ñett yi mi ngi am ci ñoom ci ñoom ci jàmm rek ak salaam akuk dal mooy am ci ñoom mooy li feeg ñi jiite feeg nit ñi ñi ngi wax di sàmmonteeg seeni kàddu feek ñi ngi atté di atté ci mano. feek yermande mi nga am ñet yi li feek mi nga am ci askan wi jàmm ak salam rek fi am waye nak bu fi joggé rek wala benn ci yoyu joggé fu dem ba nit ñi samonté ak seen cadeau dem ba barabu yu kay ken dutu fa atté te deug dem ba yermande amatul ci biir askan wi nee ci fitna gën di jinga kon lolu moy ak ju ñëk ji nga xamanteni moy affaire te loolu mooy keno bi am solo yàlla def ko ci mu lekk ci ay lenn ci ay turam kon ku jiite ku nekk loolu war na koy teewlu ci boppam xam ne luñ def fii ci àdduna danañ ko defaat ëllëg ñu wax fii danañ ko waxaat ca jëf du mooy boroom jëf du mooy boroom ni ko euh, ni ko ni ko walla fii di waxee yàlla it yàkkamtewut yàkkamtewut moo tax njiit yi war nañ di bàyyi xel loolu bu baax baax لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت لي فيك نيغي سامونتي كادو واي بو فكي ني كومونيكي ني داف دارا دوتي دغ دي واخ اك ساو اسكان تا لا دارا دوتي دغ تي ياو مي غاي واخ خامغ دو دغ سي تيكني سامبل كو خامن ني دو دغ يوي مانيسنا ناخ نيت ني يالا مانيس كو barabu atteyukaay yi ñuy atte di wane ni ñi nga atte dëgg wane ni ñoo seen bopp wane ni kenn tënku leen te loolu lépp dara du ci dëgg li ñuy xëpp ci bët bëti nit ñi rek la yooyu it xam nañ nañ xam ni lu ñu atte fii danañ ko attewaat te yàlla it dara ump ko ak ñaareel bi nga xamante ni askan wi am nañ ko ci ñi leen jiite muy lépp lu ñu leen war a defal ci la leen soxal ci seen mbiri àdduna ak seen mbiri diine war nañ caa waxtaan ak ñoom muy xaqul istishaara xaqul istishaara ci lépp lu aju ci doxeenu mbooloo mi lépp lu ñëpp bokk dañ koy péncoo dañ koy péncoo waxtaane ko nañ koy defe nag muy li ñu wax forme bi mën naa wuute ni jamono di wuutee ni barab yi di wuutee waaye faw waxtaan diggante njiit ak ñamu jiite moom loolu lu war a am la te loolu tamit la yonent bi e, jëfe ginnaaw bi ko ko yàlla sante yàlla moo koy wax ni ko faafu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين tolof tolof yi am ci sa ci sa biir njabootu gi nga jiite muy jullit ñi dee leen ko jéggal li ñuy njuum yi leen di dal te muy aju ci sa jëmm wala yu jëm ci yow dee leen ko jéggal di leen ñaanal njéggal yàlla tamit ci lépp loo nar a def ca mu aju ci seeni mbir ñoom lu ñëpp bokk na nga ci waxtaan ak ñoom soo ko defee ba xalaat yu leer ya ñëw ba nga bañ tënk dara boo ko dee jëfe nag na nga ci am ak dogu te wakkiirlu ci yàlla nga xam ne ndamkat yàlla moo koy joxe fonk gu yàlla fonk waxtaan ci biiru askan moo tax mu lënkale ko ay jaamu yàlla gu mag a mag mooy julli walladina istajaabu li rabbihim wa aqaamu salaata fi wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun da koo lënkale fii ak joxe azaka da koo lënkale fii ak julli ci ay ponk lañ ci ponki lislaam yi yu ama ama am solo kon loolu day wane ni waxtaan ci biiru askan lu munta ñàkk la nañ koy defee nag mën naa wuute njiit li mën naa wut ñu bari xam-xam ñu rafet jikko ñu baax ñu am expérience ci dund gi mu sësali leen ci boppam lépp lu muy waxtaan ci fànn bu nekk mu am ñum ca weccanteel xalaat loolu mën naa nekk mën naa nekk it mu def comme niñ defoon référendum yi amoon nga xam da nga koy laaj askan wépp ni leen bëgg naa nangam fu kàddu yu gën a not jëm wala askan wi lu ñu ànd nga def ca loola yooyu yëpp mën naa nekk kon defeen wi moom mën naa wuute ni jamono yi wuutee ni barab yi wuute waaye ñàkk koo def moom ëpp naa def yonent bi alayhi salaatu wasalaam day wax ni aw nit day li feek ñi nga waxtaan yàlla ci njub rek ak ci lu baax rek la leen di teg maa tashawara qawmun qat illa hudu li arshadi amrihim li gën a baax ci seeni mbir rek la leen di yàlla di yoon woowu la leen di teg li feek ñi nga waxtaan ci seen biir waxtaan nag li bu ko yàlla santaane lam ci jublu mooy dafa bëgg xol yi gën a dëppoo gën a nekk benn ndax su fekkee ne njiit li waxtu wuy def dara waxtaan ca ñamu jiite dana tax seen xel di gën a dal seeni xol di gën a jege ba noppi ñu koy gën di déggal muy benn ñaareel ba dañoo bëgg nit ñi di roy ci ñi leen di jiite bu ko yàlla digalee yonente bi alayhi salaatu wasalaam day bëgg ginnaaw bu fi jógee ñi ko fiy wuutu di roy ci aw doxinam ci fànn boobu ak ci yeneen fànn waaye tamit day bëgg li nga xam ne mooy gaaral askan wi ca xëy na yàlla waxu ci ci biir alquranul karim yonent bi alayhi salaatu wasalaam jotu ci woon a wax waaye doxiinu jamono moo ko indi bu boobaa nit ña waxtaan ca ca seeni biir ba am luñ ca tënk kon ñett yooyu bokk na ci li tax yàlla sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi aju ci moom ñuy waxtaane seeni mbiri bopp xol yi gën a dëppoo gën a jege soppante ak bëggante di am diggante njiit yi ak ñi leen ñañu jiite ak diggante ñiñ jiite ñoom seen biir ba noppi ñuy royante ci jëf ju baax dooju te it ñuy seet xalaat yi gën a jub ci lépp loo xamante ni fekkuñ ko ci alquranul karim wala ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam jëfe na ko ci anam boo xamante ni bu ama ama am solo la mbooleem dogal yi nga xam ne daana ko jël te mu yitteel askan bépp da ci daa waxtaan demoon na ba ñi nga xam ne ñoom la jiite sax bu bëggee def dara wala mu def ko xëy na jutu ci woon waxtaan wala mu waxtaan ceeg ñenn ñi kenn ci ñoom dana am fitu bu ca gisee beneen xalaat bu gën a jub dana ko ko laaj dana ko ko wax ci misaal xaswatu badr xeex bi njëkk am ci lislaam euh, barab booba ñu tànn dañ ko ko xelal te xam nga ne ñoom ndegam ñoom xamoon nañ ni wax yu bi jibril da ko daa ñëw ci moom ni ko sa borom nee na léeg-léeg bu ma saa def dara ca ñoom ñu gis leneen luñ jàpp ne moo gën a jub dañu ñëw ne ko ndax lii nga def yàlla moo la ko sant wala ci sa xelam bopp nga ko def bu dee yàllaa ko ko sant mu ne leen yàllaa moo ko sant wax ji ferenkulaayu su fekkee ne ci xelam boppam la nag da leen daa wax ne la yéen kat yéen a ma gën a xam seen mbiri bopp yéen a ma gën a xam seen mbiri bopp su ko defee kenn ci ñoom ne ko yaakaar naa ne bu ñu defoon nangam ak nangam ni ca xare booba ci loolu la ko lañ ko xelale woon ni ko nañ dem ca pegg ndox ma fa ndox ma nekk ñu dem foofa yàlla dogal ñu am ndam ca ca xare ak ci yeneen ak yeneen ak ci yeneen ak yeneen ay misaal yu bari yoo xamante ni léeg-léeg da ci daal jëlëb dogal ña topp ci ginnaawam laaj ko ne ko ndax yàllaa la ko sant mu ne waaw walla déet bu ne déet ñu ne ko gis nañ ni nàngam moo gën su ko defee mu fekk leen ci looloo tax Abu Hurayra di saxaabi bu mag seedeel ko sedde si wax ne day mësuma xam njiit lu gëna bari lu muy waxtane ak ñamu jité kenn ci aduna bi ku du ci bi alayhi salatu wassalam lima xam ci mom ak waxtane li ñëpp bok melakan wo ak nim ci ràññee ko musma xam ku ni melni mom lam yakun ahadun akthara mushawaratan li ashabihi min rasulillah ku tedd ki tamit serigne touba radiyallahu anhu momit non la da def lépp lo xamanteni ci askan wépp la jëm da ko daa waxtaaneek ñu sës ci moom da ko daa waxtaaneek ñu sës ci moom barab bii ñu nekk di tuubaa ba mu demee ba jël xalaat bi ni day dem Mbàkke Baari ca Jolof ndax xëy na yar bi fi mu ngi tàmbalee sooxeew ak tamit xëy na yàlla nar naa jaarale dogalub génn bi réew mi ci biti ndax dañ koo aaral dëkk bi waxtaan na ci Sëriñ Mbàkke Buso waxtaan ak moom ci suuf ne ko dama am xalaatu dem Jolof génn dëkk bi dem jolof ndax daal am na ay sabab yu tax ñu waxtaane ko bañ tënk la ñuy tënk mu ne ko nag su ma dee dem yow laay bàyyi ci dëkk bii di Tuubaa nga wuutuma fi toog fi kon sëriñ Mbàkke Buso la dénkoon dëkk bi bi muy dem Mbàkke Baari ca Jolof ca booba waajuru nijaayam mi ngi foon sëriñ bu Busoobe di waajuru sëriñ bu so waaye teewul sëriñ Mbàkke Buso la ci waxtaanal te boobu sëriñ Mbàkke Buso ay fanweeri at lay am muy taxawaayu ndaw yi ci yoonu murit ba léegi day dellu siwaat foofu kon bu ndaw yaafus ndawul taalibe sëriñ Tuubaa wurta yaafus wurta jàpp ne mënul dara na am jom na am fit nay góorgóorlu ci wàkkirlu ci yàlla loolu la sëriñ Tuubaa jàngale woon école bi ñu bëggoon a ubbi tamit ci Mbàkke Bawol kii laat laataa ñu koy ubbi laataa ñu koy ubbi waxtaan na ci ak ñoom ba seen xalaat jàng jëm ci ñi nañ ko ubbi ak yeneen ak yeneen ci yoo xamante ni balaa mu cay def dara dana ca waxtaan ak ñi ñam ca war a waxtaanal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag uh, uh, daal leeral naka lañu war a waxtaana naka lañ war a xelale njiit naka lañ ko war a xelale mu ne njiit buñ ko dee xelal kenn du ko xelal ci mbedd njiit kenn du ko xelal ci pénc kenn du ko xelal ci mbedd njiit boo ko bëggee xelal da ngay am wéet ak moom wax ko la nga koy wax ci teggin ak yar bu ko jëlee baax na su ko jëlut fekk na yow def nga sa warteef loolu nag ci jamono jee xëy na du ñépp ñoo koy man ndax ñépp joti fa ñépp joti fa waaye ku yàlla dogal mu joti fa cam am xalaat yu yu leer ci doxeenu réew mi ca muy xam li nit ñiy xalaat ak la ñuy dund su ko mënee jottali njiitu réew mi na ko koy jottali ndax loolu ndimbal la ci moom ndimbal la ci njiitu réew mi ndimbal la ci ñi ñu jiite tamit waaye nag ñépp joti wuñ ci yonent bi loolu la digle su ko defee nag ñu xam naka la ñuy xelale suñu njit di leen bañ a ñàkke war ma ca wax ja di ko bañ a wax ci pénc wala yeneen ak yeneen loolu amut war ma amut sutura waaye yaakaar naa ne suñ sàmmonteeg sart yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam santaane yaakaar naa ne mi mën am jàmm képp ko xam daal sa kàddu joti na fa nga mën a wax ak moom ca yow yaa ngi jaxasoog nit ñi di xam la ñuy dund di xam lan mooy seen jafe-jafe di xam fa seen xalaat toll nga di ko ko jot li dana ci baax sëriñ Mbàkke Buso nag wax na ni njiit lu lu mu rafet rafet xalaat lu xam-xam ba bari bari lu man-man ba bari bari lu mu wóolu wóolu boppam ak lu ko nit ñi wóolu wóolu di ñëw ci moom di jël si xalaat am na yoo xam ne su ko gaaralee moom ci boppam war nay dem fekk nit ñi di leen laaj xalaat wax ni lu tax mooy ni bët mën nay gis lu jege mën nay gis lu sori waaye mënut gis boppam bët bu gisee boppam rek daa taxaw ci kanamub seetu shaawir siwaaka ida naabatka naaibatun yowman wa in kunta min ahli almashuraat fal aynu mooy dëgg bët mënta gis boppam mën naa gis lu sori mën naa gis lu jege waaye ngir mu gis boppam moom dafa war a taxaw ci seetu njiit nag moom it lu rafet rafet rafet bu mu ko doyloo lepp lu muy def lu jëm ci warna askan wi war na penjo waxtaani war na koo euh, péncoo ñu seet xalaat ya gën a jub ya gën a nosu ñu jëfe ko sëriñ Mbàkke Buso mi nga xam ne moom it kenn la ci ñi ku tedd ki yaroon serigne Tuubaa radiyallahu anhu mas naa bind benn bataaxel jëmale ko ci Ngalandu Juuf Ngalandu booba dafa am ndomb ak tànk guñ ko fal mu bind ko leetar leetar boo xamante ni dafa mel ne yàlla mooy wax ak njiit li yàlla ci boppam dafa mel ne moo taxaw ci kanam Galandou juuf di wax ak moom nga xam ne Serigne bu Bousso mi ngi ko tuddee euh, mi ngi wax ana lisaanul xaq ana lisaanul xaqi euh, di ko wax ne man maay kàddug dëgg man may kàddu dëgg taxaw ci kanam Galandou Diouf daal man maay kàddug dëgg man maay def te kenn mënu koo dindi lu ma dogal jaam du ci man dara kon fal gii ma ko fal day mel ne yàlla moo koy wax ci kanam Ngalandou Diouf fal gii ma fal Ngalandou Diouf kum neex nanga ma ci sant ku ci amoo naqar nag na nga xam ni nar ngaa faatoog saw naqar ni sama dogal kenn mënu ci dara daa di waxaat wax ni euh, ngalandu ngalandu na nga sant yàlla te jàppe sa bopp kenn ci mbooloo mi bañ a juum jàpp ni yaa leen gën barab bii nga nekk man maa la fi teg te dama la cee bëgg a nattu xool ba xam li ma la sant da ko def wala doo ko def xool ba xam lii ma la sant da ko def wala doo ko def waaye yow ngalandu yàlla mooy wax de sëñ eh, eh, sëñ Mbàkke bi ci bindiin bi noonu la ko def daana na ko nanga nga xam ne góor góorlu ngal la ba bu ma wor man yàlla bul wor tamit askan wi ci li ngeen dige ndax fal gi fal gi yàlla da ko jaarale ci loxo doomu aadama yàlla li muy def da koy jaarale ci ay loxo waaye du wàcc ci kaw suuf di defal boppam kon la fal googu ma la fal na nga fexe ba bu ci woru bul jàpp ni yaa gën ñi nga jiite waaye man maa la fi teg rek ngir nattu la ngir xool Euh, nan ngay def daan ne mbooloo mi yéen ñi nga xamante ni ak falam dafa jaar ci seeni loxo yit maa ngi leen di digal lépp lu ngeen di sàkku ci moom njiit li bu kenn dem ci moom ngir intérêt boppam kese kese waaye lu waaye di sàkku ci moom na ci bàyyi wàlla xel intérêt askan wi am réew nag ci yamoo ak maandu ci ci lañ koy tabax am réew nit ñu mën nañoo bañ a gëm yàlla waaye su fekkee ne ak rafetal ak ak maandu ma nga fa jàmm man na faa yàgg sax fa waaye luñ luñ woote woote wo ak jullite ci ak tooñ ak ñàkk maandu tasaaroo fa jàmm dana fa jafe ak dal dana fa jafe kon jàmmi réew ajuwu ci ngëm yàlla rek waaye mi ngi aju ci ak maandute ak ak yamale su ko defee loolu mat na di bàyyi xel léeg-léeg ñu bañ a jàpp ni rek ñun ay jullit lañ jàmm rek moo fi am ñun ay taalibe murid leen jàmm rek moo fi am loolu sëriñ Mbàkke bu sa bokk na ci li mu wax daan ah, ak ak dal ak jàmm ak salaam maandute moo ko mën a indi donte ak wedd yàllaan fa ak ak kàccoore waaye ak ngëm yàlla fu mu nekk it su fekkee ne nit ñi dundum seenu ngëm yàlla bu boobaa euh, maandute mën na faa euh, jàmm mën na faa bañ am loolu kon gis nga sëriñ Mbàkke bu sa moom mi nga xam ne sëriñ Tuubaa moo ko yaroon gis nga taxawaay bi mu amoon te moom kenn la woon ci askan wi xam na ni am na aqi laabire am na aq ci laabire njiit li di ko teg ci yoon su ko defee mu bind bataaxel boobu def ci bataaxel boobu doonul benn rek bu mu bind waaye moom naka jekk saa bu askan wi masaa toll ci xat-xat dadaa dadaa def lu mel noonu am na ku ñuy wax teeñ tanoor yoonu murit bi muy door a taxaw amoon na ay jafe-jafe lool muy bundu xatal taalibe murit yi bu lool sonal leen lool ba sax tuubaa gi ma son naa gent loolu euh, moom la sëriñ moom la sëriñ Musaa di wax taalub sëriñ ba daal di fay fa tuubaa ak mbàkke tey jéeka wuuteeg booba ndax bundu xatal yu ñu leen daa bundu lool lu nañu def leen ko waaye sëriñ Mbàkke sa ba mu yëgee loolu dafa bind lettre teeñ tanoor te boobu moo jiite woon moo jiite woon Bawol Lambaay nekkoon capital ba mu bind ko leetar di ko xamal ne ko nekk bundaxatal gii ñuy def taalibe Serigne Touba yi Cheikh Bamba yi tooñ gu mag la te itam na ngeen moytandiku ndax Serigne Touba waliyu yàlla la te ragal naa lool su ko yëgee lu mu mën a mën a muñ moom ku dëddu àdduna la ku mën a muñ loraange doomu aadama yi waaye boo xamee ni ñu ngi bundaxatal taalibe yi yaakaar naa ne loolu boo tudd du ko neex te dana ci mer bu boobaa musiba mën na laa dal kon nag maa ngi lay sant booba teeñ tanoor la ko doon wax ak doole ji mu amoon ca jamono jooju ni ko maa ngi lay sant nu mu gën a gaawee te lii ma lay laabire nag sa njariñul bopp moo tax lépp lu ma la digal te boobu dafa fekk mu mu fàttali ko yàlla ak njiit ak wàccuwaay bi mu am ak yépp daan ne nag lii ma lay sant sa njariñul bopp moo tax dama bëgg nu mu gën a gaawee taalibe yi ñu jàppoon ñu bàyyi leen taalibe yi ñu jëloon seen alal ñu delloo leen seen alal te xam ne tooñ baaxul te nge ndax ndax booba taalibe yi fu ñu mës romb rek eh, dañ leen di tooñ di leen doyadal di leen jël seen alal ñi ñu leen dóor ñi ñu leen jàpp di leen tëj te boo waxee ñu ne nee na ñu ne eh, eh, kilifa gu mag bi moo ñu ko moo ñu ko sant Sëriñ Mbàkke Buso bi mu yéegaloo dafa bind leetar daal di leen di daal di koy kii nga gis taxawaay bi mu ci amoon ca moom kenn la woon ci askan wi ak la ko ci mënoon a fekk lépp nag la ko ci a fekk lépp umpule wu ko xam na ko ndax teen moo dajale moo dajale woon Cheikh sa ca làmbaay nii la da ngeen bàyyi sëñ Tuubaa wala ma rendi leen yéen ñépp waaw kon loolu euh, ka doon def loolu fa mu tolloon ci doole euh, di def loolu ku am fitu bind ko leetar bataaxel di ko fàttali di ko fàttali loolu xamal ne yow sa war xamal ne kooku ragalutoon ku dul yàlla xamal ne tamit warteefam euh, mi ngi ko doon mi ngi ko doon def kemtulaay kàttanam ci loolu lay ci loolu lay euh, lay wax ne keroog dalee na keroog dalee na woo fa péncum làmbaay ñi leen danaa leen tàggaleek ay laxasaay ak yeneen ak yeneen la fa xewoon lépp yaakaar naa ne ñi topp kii bi ñi ñi topp histoire yoonu murid euh, xam nañ kon gis nga ko xelal xelal kilifa warteef la àq la ci ci ñi ñi ñi njiitu sa buñu gisee ni njiit li mi ngi jàdd yoon warees na koo jàppaat ci loxom delloo si ku ni ko déet du noonu bu waxee wax ju juunu ñu jubbante ku ni ko déet du noonu ndax bu lépp weesoo nag nit rek la kon loolu mooy ñaareelu àq bi nga xam ne tamit askan wi war nañoo xam ne loolu seen àq la ñu di ko taxawoo kenn ku ne sa kemtulaay kàttan fa nga jote nga nga difa dem ngir jubbanti njiit yi suñu njiit yi te loolu day dugg ci biir cadre li ñuy tudde al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yalla neena deme bis bu ngeen demee bay egg di seetaan ye ñepp kenn ku ne ni sama yoon neeku ci wala nga man ca dara defo ko neena safuma ma wacce sama mbugal ye ñepp ngeen al ko ñepp sa bu ngeen demee bay bay ñi togn ñuy dem rek kenn waxatut kenn xàjjeetut duma saf ma wacce sama mbugal ye ñepp ngeen al ko ben yoon te lol nak du ko ñetteelu àq yi nga xamante ne warees na koo bàyyi xel ci ci àq yi nga xamante ni ñi ñu jiite am nañ ko ci ña leen jiite mooy kaaraange kaaraange kaaraange googu nag am na ñaari pàcc yoo xam ne warees na ko ca bàyyi xel war nañoo aar jëmm yi war nañoo aar aar am-am yi war nañoo aar deret nit ñi ci lépp lu ko nar a yàq war nañoo aar suuf si nga xamante ni ak mboolem li ñépp bokk lépp warees na koo aar aar frontières yi aar nit ñi ba fu ñu bëgg a dem dem beeg dikk bi kenn ku ne man koo def aar seeni alal ba duñ tiit duñ amuk jaaxle aar leen ci lépp lu yàq seenu der lépp lu nit ñi bokk tamit ñu di ko sàmm di ko aar loolu warteefu nguur la warteefu njiit yi la ndax nit ñi dañoo dajale seeni am am dajale seeni sañ-sañ jox ko su ko defee ci loolu tamit ci la leen war a wuutoo foofa wuutu leen foofu ñu aar barab yépp yi nga xam ne ay nit a bokk jumaa yeeg barabu jaamukaay yàlla yeeg mbooleem bâtiment yi nga xam ne ak yépp daal yoo xam ne nit ñee ko bokk loolu warees na ko sàmm warees na ko aar alal yi yépp bokk tamit warees na ko aar bu tegee ci loxo war nañoo seet ci loxo euh, njiit li war naa seet ci yan loxo la koy teg kum ko teg ci say loxo tamit muy xool naka nga koy saytoo mooy li ñuy tuddee rek la bonne gouvernance mooy yoreen wu leer fu mu nekk nii dañ koy wax rek ay naan bonne gouvernance équité transparence ay kàddu yoo xam ne boo ko déggee mu neex lool ci sa dégg-dégg waaye boo xool génnee ci mbedd mi ak li ngay gis di ko dund bis bu set da ngay sikk sàkk ci amag loola loolu warteefu njiit la waaye àq la ca ñañu jiite mu ñu aaral ko jëmmam aaral ah, ñu aaral leen seeni jëmm ak seeni am-am aaral leen lépp lu nar a yàq seeni der ci ay kàddu yu ñaaw ak yeneen ak yeneen muy benn ñaareel ba ci yiñ war a aar mooy pas-pasi doomu aadama yi nit ñi dañoo nekk ci àdduna am fi ay pas-pas gëm am yuñ gëm gëm-gëm yooyu yu mat a gëm warees na koo sàmm bu baax a baax bu dee réew mi ay jullit ñi ngi fi ñu du jullit ñi ngi fi gëm-gëm yooyu bokk na ci warteefu réew mi ñi jiite réew mi di àq ci ñi ñu jiite ñu sàmmal leen seen seen pas-pas yooyu sàmmal leen seeni xalaatin sàmmal leen baax yi ak aada yi cosaan yu baax yi fi nekkoon ay ngor ay jom ay euh, tabe ay yiwe ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp war nañ leen ko sàmmal ba lu ko fi nar a jële ñu jële ko fi mboolem ñi nga xam ne dañuy woote woote yu bees yoo xamante ne amul benn njariñ day gëlëmloo nit ñi di di di di jaxase xel yi yooyu àq la ci ñi ci askan wi ñu ñi leen jiite taxawu leen ci fànn boobu mooy di seet lépp lu fi mën a dugg ci ay téere wala ci ay film wala ci internet bi ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax wala sax ñi dëkk ci biir réew mi tey boo tudde seen bopp ay artistes jàpp ne lu ne lañ leen war a may yooyu yépp nguur gi war na ci am taxawaay ndax day jaxase xel am na coo xam ne dëppoo wut ak suñuy pas-pas nekk ay jullit ni ku ñu gëm yàlla yooyu warteefu nguur la ci mu seet la ca dëppoog suñuy pas-pas ak suñuy baax suñuy aada ak suñuy cosaan ñu sàmmal ñu ko te loolu moo ëpp solo aar sax yaram bi ndax xel bu dalut yaram du mën a wér al amnul fikri loolu luñ war a sàmm la ndax bala nga ne naam danga fiy nekk nekkuñ fi rek ci lekk ak naan nii rek waaye dafa dañoo gëm yàlla war koo jàmm war koo sellal am ay royuwaay yooyu yëpp dañu ko war a sàmmal symbole yooyu dañ ko war a sàmm bu baax a baax sàmm suñuy kilifay diine aar leen ba noppi lépp lu leen di doyadal di leen ñàkkal fayda ñu bañ leen caa dégg ñoom waaye ñu bañ a bàyyi dara mu di leen ca mu leen ca yóbbu moo tax tamit rajo yi ak télévision yi lépp lu ciy jàll war nañ koy sàmm bu baax a baax ñun ñëpp dégg nañ fan yi weesu rek artist boobu ñu fi jàppoon jàppoon nañ ko tëj ko tuuti mu mel ne àdduna day bëgg a tukki ba ñu waccaat ko génne ko néewuma def na néewuma deful waaye liberté war askan wi moom seen seeni pas war nañ koo sàmm bu baax a baax dañuy jéem a tàqale tamit nag dundu doomu aadama gi naan kii artiste la artiste yaakaar naa ne bu dee jullit tamit fu mu war a nekk bu dee dund ak aaram tamit war na caa boole ak pas-pas pas-pasam kon waruñoo mën a tàqale diggante liggéey bi ak pas-pas bi pas-pas bi dafa war a ànd ak jëmm ji war a feeñ ci liggéey bi waaye bu fekkee ne da nga ne artiste la ba tax pas-pas bi dama koy summi teg fële def sama yëfi aar ba noppi dellu siwaat nekk ak jullit mën naa am sax nekk taalibe sëriñ bi yooyu yeneen mbir la loolu warees na ko xool bu baax a baax wax deug yalla man yaakaar naa pass du mbubb mu ñuy solo ki summi dafa wara a di fenc ijaf. ay jëf ca nak li ñuy lëndamale nit ñi moy affaireu liberté yi ñu wax deug la jafé na lool nak moy équilibre am manam diggu doomu am ci digënté sammu sañ-sañu doomu aadama ak seen liberté ak sammu seeni baax ak seeni pas-pas lolu jafé na lool ndax réew yi tamit dañ ci ëppal am na ñoo xamante ni dañuy liberté yi mu ëpp ba réew mi nekk daanaka eh, affaire fo ak caaxaan ak fawda ak anarchi am na ñoo xam ne dañ naan dañuy sàmm aada jeeg cosaan jeeg baax yi ba far ëppal di xañ nit ñi seeni seeni sañ-sañ yooyu fa la mbir mi nekk mooy ne kon digg doomu war naa am daal nit ñi war nañoo am sañ-sañ di dem di dikk di wax li mata wax di xalaat li mata xalaat waaye tamit nag ñuy sàmm bu baax a baax eh, xiyam yi mooy jikko yu baax yi yi nga xam ne moo nekk ci réew mi yi nga xam ne moom lañu diine ji indil loolu nag ngir mu gën a yomb yaakaar naa ni dañoo war a seet njiit yi ñuy tànn njiit yi ñuy tànn war nañ ciy gën a bàyyi xel bu baax a baax bu tànn jotee ñu fullaal tànn ba ca xam ni ñuy tànn képp koo xamante ni xam-xamu diine ak àdduna daje na ci yow jikko ju rafet daje na ci yow man-manu jiite daje na ci yow yaa gën a yeyoo ñu jiital la ci keneen waaye loolu nag dana xaw a jafe xëy na ci réew mi ndax sunu sunu réew mi ni mu tëdd la moo tax nga gis ñun sénégalais yi li ñu ràññee ko ci yeneen réew yi mooy daanaka dañuy am ñaari kilifa dañu am ñaari kilifa ci wàllu doxinu àdduna kii moo ciy sa kilifa wala kii nga ciy xool ci wàllu politique ci wàllu diine kee moo ciy sa delluwaay mu mel ne kon yow ñun sénégalais yi dañoo tàqale diggante suñu diine ak sunu àdduna ca yooyu waruñoo tàqali ko ñoo war a ànd bokk na ci jafe-jafe yi nag mooy ka jiite wàllu àdduna bi du xam dara ci diine ji ka jiite wàllu diine ji du xam dara ci àdduna ca diine munta jag ci àdduna jagul ndax dund diine fii ci àdduna lañ koy defee mais alaaxira kenn dutu fa dundu diine ak fay moo fa am ak pay kon ñi ñuy jiital nañ leen di xool bu baax a baax ci wàll fànn bu ne nag ci wàllu diine ji ak ci wàllu àdduna ji il faut que ñuy xam ñi ñuy jiital ñan lañ ndax ndax xam-xam ba ma nga fa ndax man manu jiite ma nga fa ndax jikko yu rafet ma nga fa nit mën naa am xam-xam am jikko yu rafet ca man manu jiite du ko am su ko defee loolu dana ci baax lool ñu xam ne njiit tamit dafa am lu ñu ko sant mu war koo amal su ko munta amal ñu xam ni man-man ba nekkatu fa ak lu mu baax baax ak lu mu bari bari xam-xam ndax ñaari mbir yu bokkut la kon askan wi bokk na ci seen warteef ci seen àq tamit ñuy bàyyi xel bu baax a baax seeni njiit seet nuñ leen di tànne te loolu danañ ci dikkaat kon kaaraange googu ma doon wax ci ñaari pàcc la nañ sàmm jëmm yi aar jëmm yi aar am am yi aar li ñëpp bokk te ñu mën koo laal waaye nañ aar xalaat yi aar diine ji aar pas aar baax yi fi maam yi bàyyi woon ca muy lu mën a lu mën a wéy lu baax yooyu yëpp dañu ko war a sàmmal bu baax a baax waaye buñ jàppee ne wàll matériel rek lañu war a sàmm loolu day daal di indi ay jafe ci doxeenu askan ñaari doxeen yooyu nag ñaari kilifteef yooyu bis bu tàqalikoo ci dimbalante ak waxtaan ci seen biir amul muy kilifteefu àdduna ak kilifteefu euh, diine suñu tàqalikoo nekkul ci yenn loxo ci ñaar ñi ko yor dimbalante ci seen biir duñ waxtaan ci seen biir duñ mottalante ci seen biir askan wi rek ñoo xala sonn askan wi rek ñooy xala sonn ndax kenn ku nekk day nekk ci waaram di def lam jàpp ne noonu la war a def ca bu boobaa dara du jàkk ndax ki nekk seen diggante am ñaari kilifa bu dee ci wàllu diine sëñ diw sàngam mooy sama sëriñ wala ci tariqa sàngam laa bokk bu dee ci wàllu àddina ki jiite parti sàngam laa bokk yooyu day loo askan wi askan wi ci boppam ñoo warutoon a nangu loolu sax far nag benn yoon waaye ay jafe-jafe la waaye ndegam nag moo foofu lañ toll kon ñaari kilifte fi war nañ di dimbalante ci seen biir ci loolu lépp lu koy jàppandal lépp lu koy yombal askan wi tamit war na ciy dox kenn bañ seetaan kilifay diine bañ a seetaan ñooñ àdduna yi ñu jàpp ne àdduna moom lu la fi neex def ñu xam ne njaboot ñoo ko bokk ci itam mënees koo séddoo ñeenteelu àq bi nga xamante ni euh, nit ñi askan wi am na ko ci njiit yi mooy ni yayoo nañ ñu yërëm leen yayoo nañ tamit ñuy jéem a nemmiku seeni mbir jamono bu nekk doo jiite ay mbir rek doo jiite ay nit ba mel ne ba ba noppi duñ joti ci yow te itam doo xam ci luñ nekk loolu tamit bokkut ci li jaadu bokkut tamit ci li lislaam santaane kon xaqu raaya fi rifqi wa tafaqudi ahwalihim loolu àq la ci ñi jiite muy seen warteef ñoom ñuy nemmeeku askan wi di xam fan la xalaat yi toll fan la aajo yi toll fan la jafe-jafe yi toll ca loolu moom la moom la euh, yàlla euh, yàlla tagge yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ni ko sa yërmande sag laabir moo tax mi nango dess ci sa ginaaw di la topp ndegam noonu la nak di len jéggal yenn recc recc yi di len jéggalu yalla tay waxtaan ak ñom di len sagal lepp do nara def bis bu ngeen teunké dara nga am teg dogu nak ci yaakar yalla ne ko bok amon xol bu kat am kanam gu fasu mbolo mépp danañ dem bayyi def kon nit dafa aja ku ko yërëm nit dafa aajowoo ku ko yittewoo njiit yi nak dañoo wara yitté yittewoo ñi nekk ci seen suuf ak fu njiit li mën a toll walaw kunta fasdan xalisa al qalbi lam faddu min xawlik faafu anhum wastaxfir lahum wa shaawirhum fi l amr fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibu almutawakkilin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan yàlla dafa ñaan yàlla ni yow yàlla maa ngi lay ñaan képp ku ñu dénk mbirum jullit ñi ba noppi mu leen di fitnaal amut yërmande ci ñoom maa ngi lay ñaan nga fitnaal ko yow képp koo xamante ni jiite na leen ba noppi di leen yërëm maa ngi lay ñaan nga yërëm ko ñaanub yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca xam ngeen ak ñaanam diis ko delloo te ñaan ba àllaaxira di taxaw day valable kon njiit bu nekk bu def jullit war naa bàyyi xel ci ñaanub yonent bi alayhi salaatu wasalaam jéem a yërëm aw askanam jéem leen a nemmeeku jéem a wàññi seeni jafe-jafe allahumma man waliya من أم من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به نجي اك نيمو جيتي نك لي دوخ سين ديغنتي موي تيوفال ما ورا ام اك وار مالانت جيتونا مالين گن لولو امو في نجيت تير لا بو يالا دي جوخه كوم كو جوخ داكو ورا جابي او ساس جابي كو اب ناتو te bañ ko jàppe ak teranga ñun nak ci suñu réew mi dafa melni jaxas yoy dañ koy def amna ño xamni cër yoy ñi leen yalla di leen jox teranga lañ koy jappé ci ñoom ak seenu njabot ci lool njuumte la aw sas la responsabilité la fi ci aduna ak bu alakhira loolu dana baax nit ñi di ko xam xam ne diggante jiit ak ñamu jiite contrat moo fi am contrat buñ signé contrat boobu nag lañ dëppoo woon ba tax ñu tànn la loolu dañ ko war a sàmm njiit di war di bàyyi xel aw askanam di xam seeni tolluwaay seeni jafe-jafe fan la loolu léeg-léeg jafe-jafe bi mooy ñi ko wër ñi koy wër dañuy dox day mel na ab ñàkk ci léeg-léeg njiit yi ña leen wër dañuy mel na ab ñàkk ci moom ba xabaar yi war a egsi duñu egsi ba li war a teg bët du ko teg bët ñooñu njiit lu am ñu mel noonu na xam ne ñu ngi koy sànk ñu ngi koy sànk ndax aw askan da leen di nemmiku di jéem a xam ci liñ nekk lan la seen xalaat fi mu toll balaa balaa seen diggante sore te doo ko yëg am na fi njiitul réew fii ci senegal jamono bi muy daanu bi yàlla dogalee mu war a wàcc war a daanu élection yi élection yooya luñ ko laaj daanaka lu ko rajo yi journaliste yi laaj danaan yëguma ko woon xawuma ko woon loolu jàpp ma ne jaadu na ci ku jiitam réew loolu nag mën naa nekk ndax boo yàggee ci nguur gi ak ñi la wër dañuy dem di ñag di ñag di ñakk ba nit ñi duutuñ joteeti ci yow xibaar yi duutuñ egseeti ci yow xibaar yu wér yi duutuñ egseeti ci yow te dootoo mën a teg ba yenn yi nga defe ne yaa nga ca fekk te yoo ñu ngi lay ñu ngi lay sànk loolu it ñag boobu njiit li ci bopp moo ko war di ñàggi di sànni léeg-léeg nag nga dégg ay wax yu yuy dalal xel yuy dalal xel léeg-léeg da ngay dégg sax audience yi ñu naan ndax dañuy jaay audience dégg nañ fi njiitu réew mi muy wax ni ku leen ku leen bëgg a négocier audience bañ leen loolu lu dal xel la lu dal xel la waaye loolu tamit daf ñuy jox ñuy xalaat ni kon ndekete audience yi day mel ne am na ñu ci business njiit dafa war a xam ne buntam dafa war a ubbeeku ñañ jiite tamit xam ni ñoom ka nekk fële ka nekk ca kere ker ga ña nekk ca naaj waa ko fa teg day mel ne dañ koo luye rek day mel ne locataire rek dañ koo luye di ko fayal foofu mu nekk di ko fayal ay service am ngir mu wuutu leen ñoom ci seeni soxla fa seeni kàddu jotiwut ñoom ñépp moom kàddoom joti fa fa seeni tànk jotiwut ñoom ñëpp moom tànkam joti fa loolu mooy loolu mooy mbir mi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ni bépp njiit boo xam ne day tëj buntam ci ñamu jiite ba duñ mën a jot ci moom seeni aajo du duñ ko ko eggale du faju ci moom na xam ne yàlla dana ko tëjal bunti asamaan yépp moom it aajoom du faju euh, daraam du faju ma min imaamin awalin yuxliqu baabahu duna dawi alxaajati walxallati walmaskana illa axlaqa allahu abwaaba alsamaai duna xallatihi wa xaajatihi wa maskanatihi njiit loo xam ne day tëj buntam ba nit ñi duutuñ joteeti ci moom na ko leer ne yàlla tëjal na ko bunte asamaan yépp moom it aajoom duutu fajote coono rek moo nar a bare kon loolu mooy lan mooy ni njiit munta teg ñamu jiite coono ba noppi mucc ci moom munta nekk yeex ak gaaw rek la ñuy wax loolu nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ñam yaroon xamoon nañ ko bu baax a baax ba Seydina Omar radiyallahu anhu xam nañ ko bu baax ci siiraam ci jaar jaaram ba ko yàlla yàlla tegee nguur gi ci loxoom njiital jullit ñi ci loxoom bokkoon na ci li mu ràññi mooy dadaa génn guddi dadaa génn guddi di nemmee ko askan wi di génn pale bi di dem ci biir askan wi di xool di diglu daa ci gis ay mbir yoo xamante ni bu génnutoon du ko gis di dégg ay mbir yoo xam ne bu génnutoon du ko dégg waaye nag jamono yooju wuute nag bi moom maandute googu mu maandute woon moo tax da daal nelaw sax ci mbedd mi am na benn délégation bu mës a jóge ci beneen réew ñëw di ko wër ni damay laaj kilifa réew mi ñu ne ko pale ba delee nga nele waaye moom ma nga nele ca ron garab gële di nelaw mu defee ne ki ko koy wax dafa juum mu ne ko déedéet Omar laay laaj njiitul jullit ñi mu ne ko waaw moom laa la wax moo nekk nee ca ron garab gële tëdd di nelaw bi mu ñëwee ba fekk mu tëdd moom kese garde de corps amul dara amul dafa taxaw daal ne dëgg-dëgg maandu mooy lépp ci àdduna boo màndoo sa xel dana dal te fu la neex mën nga faa nelaw waaye nag boo maanduwul garde du corps yu bari yi ngay gis yépp daa am lu ko lal nit ñëpp jubadiwuñ nit ñëpp amuñ jot waaye yi ngay gis farlu lool ci seen kaaraangay jëmmu mooy daa am lu ko lal dëgg la yàqu jamono nag yàqu na waaye nag am na yeneen yu ko lal Seydina Omar noonu la daa def daa génn di xool nit ñi ci la waxawoon waxam ju siiw joojo benn doomi gouverneur doon kursu suñu raw ko mu fab xiir gi caw ko ka ko raw ndax jàpp ne doom baadoole la Seydina Omar bi mu ñëwee daf na ko fayul jox ko ko mu fayu ba nag mu taxaw jàkkaarloo ni ko yéen kañ ngeen tàmbalee jàppe nit ñi ay jaam ca ba seeni waajur di jur ay gor lañ ci kooku doomu gouverneur la woon Seydina Omar radiallahu anhu wàcce na ab gouverneur bu mu nome ca Kuufa ca danañ ci dikkaat ba askan wi ñëwee jàmbat ko ko da ko wàcce ca si te kooku ci kàngaam yi la woon ci ñi njëkk dugg ci lislaam yi bokk ci fukk yi nga xamante ni yonente bi neewoon na leen da ngeen dem àjjana kon kooku kenn du ñaaw njortu ci jikkoom ju rafet waaye daw fitna moo tax muy def yooyu am na benn bis moom Seydina Omar radiallahu anhu am ku ñëw am audience ci moom ay xale ngi fa ci audience bi ñuy toog di wax ba mu yàgg Seydina Omar ni ki njiitul jullit ñi jël xale bi foon ko yëkkati ko ba mu jóg mu foon ko gan nga daan ne daan yàlla seede na ni daal di yéemu lool daan ne ko yow ni ki président ni ki njiitul jullit xale bi ngay yëkkati di ko foon man de yàlla seede na ni musuma foon sama doom musuma foon sama doom bi mu waxee loolu Seydina Omar fit bi def ne rës jàppoon na ni àdduna ku ñàkk yi noonu ma yërmande amu fi mu ne ko yow day waat naa ci yàlla ni li yàlla bind yaa fi gën a néew yërmande sa doom sa njaboot mosoo cee fóon kenn yow de na nga xam ne ca fekk da ko nome woon ci barab de mu di ko liggéeyam mu ne ko nanga xam ne bis nekk tey wàcce naa la ndax man du ma fal ci barab ku amul yërmande ci doomu aadama yi te yërmande njaboot moo ci moo ci jiitu moo gën a jege borom ku amul yërmande ci sa njaboot jàpp naa ne doo ko am ci askanu na nga xam ne daal di signé bi ko wàcce ca saasa la ko wàcce ca saasa la ko wàcce kon gis nga jël responsabilité ak yërëm jaam yi dafa baax lool dafa baax lool ci njiit ndax mooy tax yàlla yërëm ko loolu it àq la ci ñi ñi ñu jiite ci ñi nga xam ne dañ leen di jiite ñu seeni njiit yërëm leen seeni njiit di xam ci li ñu nekk lan la ca mel ne bañ a mel ne ay lëg yu ñu boyal ci biirub lay jiite ay nit ca xamoo ci ñoom dara xabaar yu wér doo ko jot dëgg la ñu ngi wax ay ay renseignements généro yeeg nii yeeg naag yu mel bari na yu bari yu ñuy wax yu mel waaye daal la ngay teg sa bët yow di ko dégg ci sa nopp ba gën naa wér lu bari te loolu nag ku ko deful dana bari lu la ump juróomeelu àq bi mooy ni askan wi ci boppam ñoo war nañuy teg bët ñi leen jiite di bàyyi xel ca la def ak nañ koy doxale loolu seen àq la moy li société civile bi di def ONG li ñuy def di bayyi xel ñi jité lan lañ la def ñi ñuy tan ñan lañ fan lañ leen di tek ndax ña ngay tànn ñi ñu war wala deet yoyu askan wi ñoo ci wara tek ba ndax it nak nit boko denké mbir da nga wara xol denkan la naka la cey doxale motax bepp nomination bepp euh, ndomb ak tank bo xamne njit mi ngi koy jël di ko jox koo xamante ne bi mu ko ko jox gis na ci peggam ku ko ko gën a man fuuf te joxu ko ko gën koo rafet jikko te joxu ko ko na ko leer ne ma ngay wor yàlla mi ngi war yonente bi mi ngi war aw askanam te loolu tamit yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax danañ ci egsi léegi kon waree suta nome fal nit ngir askan maa bokk ak moom aw askan ngir maa bokk ak moom tariqa ngir maa bokk ak moom dëkk buñ dëkk wala ngir sama xarit la wala yeneen ak yeneen wala ngir sama goro la wala yeneen waruma koo ñàkk nome tamit su fekkee ne yor naa sañ-sañ bi ci nii rek dañoo am ak ñàkk déggoo maa moom ndax xëy na am na fu ñu mësoon a jaar wala suñuy parti politique yi bokkuñu aw giseen yooyu wurta am fal gi du ak neexale ay responsabilité la askan wee ko moom dafa dafa jox sañ-sañam njiit li rek kon njiit li bu koy jëfandikoo ci turu askan wi war nay bàyyi xel bëgg-bëggu askan wi ci loola mu bañ a doon lu ñuy paacoo kii sama allié la lii laa koy jox kii du sama allié duma ko jox lii loolu wërta am ci loolu tamit askan bi wër koo nangu am na yoo xam ne ñoo ko war a xool di xool na muy doxee yàlla mi ngi wax ni ci jullit ñi lay wax yaa ayyuha alladina amanu laa taxunu laa taxunu allaha wa rasul wa taxunu amaanatikum wa antum taalamun bu leen yàlla bu leen war yónnante bi bu leen war kóolte ak ndénkaane yi ñu leen jox bu dara àdduna tax ngeen di war ca ndombal tànk yooyu nag askan wi moo koy jox moo koy joxe ginnaaw coobere yàlla kon képp ku ko jëfandikoo ci nu mu ko wërta jëfandikoo mooy ma ngay war ñoo ñépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy wax ni من ولي رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين كيف فال دمبك تانك كين تبين كو كوي دفل موي موي كو جيتي مبير جوليت ني بنا بي فالاتي تبا غي فالاتي جيس نيو كو غنا لين رافت ديكو اوب لين مان مان تي ديفوكو خمال ني ياغي وور يالا workat nag ni ko yonente bi alayhi salaam di waxe bu àllaaxira buy ñëw day jeng genn wet lay doxe ndax munaafiq la mooy danga wax askan wi laaj leen seen kàddu ni bu ngeen ma ko joxee danaa def lii ak lii ak lii ñu ñu ñu am xel mu dal ca la nga leen wax gëm ko ba jox la ko nga dem def leneen loolu mooy wor kon askan wi bokk na ci àqam mooy muy bàyyi xel ay njiitam njiit yépp nag kenn ku ci nekk nañu nañu bàyyi xel ay njiitam ca la muy doxe na Omar moom dadaa xool ñi muy fal dadaa xool tamit xam nga léeg-léeg sax nit ki man am yépp charte yi daje ci moom ñu fal ko mu dem tuuti jàngoroy nguur dugg ko mu tàmbalee yor beneen melokaan bu boobaa warteef la ci njiit li mu wàcce ko warteef la ci moom mu wàccewaat ko dëgg la ba mu koy fal melokaan yi daje woon na ci moom waaye dafa dem ba mu yàgg virus bi virus nguur dugg ko mu mel meleen melokaan dañ koo war a wàcce mu li ñuy tudde arrogance ñàkk kersa ñàkk teggin ñàkk nawloo nit ñi yooyu ku nekk ci poste ba mujj mu dab la jàngoro la dañ laa war a faj ca faj ma mooy ñu wàcce la ci loolu askan yi moo ci war a boole fulla ak fayda di xool ñiñ koy falal di xool tamit ñañuy téye ci poste yi di xool alalam ji muy joxe fan lañ ko koy dugalal loolu rôle société civile bi la du ay parti politique ak ay alliés askan wi ci boppam moo dafa nekk seen warteef looloo tax Seydina Omar noonu la wàcce woon Saad ibn Abi Waqaas ci kàngami lislaam yi la woon rafet jikko lool macha allah bokk ci fukk ñi digoon àjjana yonente bi alayhi salaatu wasalaam digoon leen ko bokk ci ñi njëkk dugg ci lislaam ñu def ko gouverneur ci dëkk bu ñuy wax Kuufa ñu dem ba jëmmi jamono waa dëkk ba def délégation ñëw ci njiitu réew mi ni leen kat Seydina Omar ni ko di jàmbat daal Seydina Omar hésité wul sax dafa signé décret bi wàcce ko dafa signé décret bi daal di koy wàcce sikk sàkk ci jikkoy kële waaye dafa bëgg a jañ fitna laataa muy ñëw ndax aw askan bu ñu demee ba tàmbalee jóg di jàmbat boo ko gàttanduwul fipp moo ciy mujj looloo tax doxu ñaxtu yi ngeen di dégg yépp war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax waxuma nag chantage di ci am léeg-léeg nag ci biir askan wi am na ci ñoo xam ne dañuy chantage chantage mooy lan mooy jéem a jëfandikoo doole jéem a jëfandikoo mbedd mi jéem a jëfandikoo rajo yeeg télé yi ngir jañ defloo njiit li lu mu wërta def wala defloo ko lu dëppook ñoom seen bànneex loolu waxuñ ko loolu waxuñ ko waaye dañ ne askan wi di xool ay àqam mu di ko topp ndax ña ngi ko koy eh, sàmmal ndax ña ngi koy defal li mu war a def ndax alalam ña ngi koy dugal fi mu war a dugg ndax ñi mu bëgg ñu di ko ñu di leen nome ñi ngi leen di nome di leen fal wala déet ndax ñiñ fal ba noppee ña nga ca la taxoon ñu fal leen wala nekkatuñ ca yooyu yépp àqu askan wi la mu suñ ko bàyyiwut xel nag day daal di indi yeneen jafe-jafe mooy ne bu boobaa seetaan fay am bu boobaa digle lu baax tere lu bon li yàlla wax ni lu jamono dox dox nay am ci biir askan wi waltakum minkum ummatun yad'una ila alxayri ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar fu ngeen mën di toll na am ñuy digle lu baax di tere lu bon buñ demee nag ba seetaan am yàlla nee na bu boobaa safatuma ma alak leen yéen ñëpp mu jeex ndax da ngeen a seetaan ca alag na aw askan ci looloo ko waraloon dem ba mujj ñëpp di seetaan su ko defee mu alag leen ñoom ñëpp safu ko li ñuy tëje nag mooy bu fekkee ne askan wi àqam yooyu yëpp sàmmal nañ ko ko lan lay jur lan lay jur àqam yooyu yëpp xam na ko mu ngi koy laaj te ña ngi koy sàmm bu boobaa lañ lay jur ci biir askan wi ba ca njëkk mooy ni cofeel mooy am diggante njiit li ak ñamu jiite war ma mooy am diggante njiit li ak ñamu jiite te loolu moom la ñëpp di ñaan loolu su amee cim réew jàmm moo fay am mooy ne su askan wi xamee ne su waxee su su bëggee wax dana am njiit lu ko diglu su ko waxee su ko digloo dana ko def bu boobaa da koy nawloo da koy bëgg dañu wormalante ci seen biir loolu mooy wane ne njiit li wormal na aw askanam askan wi tamit wóolu na bëgg na njiitam te xam nga ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wax ni njiitul jumaa njiitul jumaa bu jiitee aw nit te ña mu jiite bëgguñ ci moom na ko leer ne julleem gi wéet weesuwut mbaxanaam mi sax weesuwut jëmmam ji du dem fenn di su ko nangu asamaan ak ku jiite aw askan mooy ni kon aw askan kenn du leen jiite ci lu dul seen xool sedd ci yow su dul loolu doo am tiyaaba ca jiite ba ca boo tuut mu gu rafet doo ko ca am kon buñ bëggee cofeel am diggante njiit yi ak ñamu jiite war am faw digloonte am faaw kenn ku nekk lay àqam ak warteefam ñu jëm ko sàmm muy benn ñaareel ba bu loolu amee war maalante wóoloonte bëggante bu amee jàmm mooy daal di am ak dal mooy daal di am kaaraanga mooy daal di am stabilité mooy daal di am ci biir askan bi fu waay bëgg a dem mën na faa dem te do tit dara ndax karanga dara am jamm ak salam dana am xol bu nakari bi dal nit ñi bay tax ñuy fipp di def ay ay ay ay ay crime ay grawali yoy bu boba dootu fi am wala du bare kon bu boba karanga dana am ak dal dana am ak wolonté dana am ci bir askanu ñettel ba moy bu boba jawuji dana nangul liggey bu boba jamm bu amé liggéey mëna jappandi jamm bu amé liggéey mëna jappandi té bu liggéey mëna jappandi nit ñi di def niñ ko wara défé ak yokuté ak jëm kanam muy liñ wax développement moy am jamono yi da ngeen di dégg ñu wax émergent émergence bi ñuy wax pour mu am faawu yi am ak askan wi faawu ñu ak mom ndax bu caaxaan weesoo ñoom ñoo fi ne bu dee ci lislaam dogal yàllaa koy def waaye nag da koy jaarale ci ay loxo ca askan wi ñoo fi nekk ku soxla njiit li ñoom nga koy laaj kon ku xas ba toog tamit war ngaa bàyyi xel seen bëgg-bëgg loolu mooy tax ak dal mën a am loolu mooy tax tamit dox euh, yokkute ak jëm kanam googu ñuy wax mën a am dégg ngeen fi fan yi weesu banque mondiale li mu waxoon ci senegal ni senegal njaboot yi dañoo war a wàññi njur mi mbir mi du mbiru nit ñu bareek ñu néew mbiru yoreen la ak mbiru nangoo liggéey ak mbiru jub du mbiru njaboot gu bareek gu néew njaboot mën naa néew ñàkk ni fi xas alal mën naa bari tuskare ni fi xas mbir mi mbiru dal la mbiru jub la mbiru euh, mbiru déggoo la waaye ay banque yu nekk ci biti dara boo rëbu leen ak senegal ci ci taarix ci ci histoire daanaka ñuy xelal ne njaboot yi nañu wàññi seenum njur buñ bëggee jëm kanam jëm kanam jar na wàññi seen ndaw yeneen réew yi nga xam ne réew yi tubaab yi dañoo màggat seen askan dafa màggat ñun suñu réew réewu ndaw la loolu moo tiitloo yenn réew yu mag yi ba tax ñu bëgg ñoom ñu arrêté wàññi njur mi su ko defee ñi doon ko màggat askan wi daal di màggat mu daal di jeex ñi ñu yem ak ñëpp kon suñ bëggee émergence bi ñuy wax ak développement bi ñuy wax am faawu ak dal am tamit ñu bàyyi xel ak doomu aadama yi ñeenteel ba mooy bu boobaa tamit yàlla dana jàppandal dana jàppandal ñi jiite di leen sàmmal seenu seenu seen seen place yooyu ñu nekk di leen ko sàmmal bu baax ndax yàlla moo ko diggee yàlla moo wax ni ñi nga xam ne gëm nañ gëm nañ yàlla tey jëf-jëf lu baax man maa leen di wuutal ci kaw suuf maa leen di jàppandalal seen diine ji nga xam ne moom laa bëgg ñu jaamu ko mu nekk seen diine maa leen di may kaaraanga bu boobaa nag sart bi mooy nañ ma jaamu te bañ maa bokkaaleeg dara وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا lu fi nekkoon aw tiis lu fi nekkoon njàqare yàlla da ko fay dindi teg fi jàmm ak salaam ak ak dal loolu nag bu ñu bëggee mu am faawu tamit loolu ñu doon wax lépp ci àqi askan wi ñuy sàmmanteeg moom bu mujj bi mooy ni yërmande yàlla day wàcc ci jàmm yàlla daf ñu maase yërëm ñu ñi ñépp fii ci àdduna ñu am fi jàmm ak ak salaam ñi ko fi doon jaamu ca gëmoon ko doon ko sellal bu alaaxira ñu am texeeg alaaxira nga xam ne lu bon bon bon moom ah àdduna moom danañ ci nekk ci jàmm ndegam moom moo wax ne bu bu ngeen demee bay seetaanante askan wi di seetaan seeni njiit kenn xàjjiwut kenn danaa leen alag yéen ñëpp bu boobaa tamit safaan bi mooy saa bu njiit yi dee yërëm askan wi askan wi di déggal njiit yi bu boobaa day maase yërëm ñëpp kon bu ñu bëggee yërmande yàlla sunu pexey neen dong du ko maye waaye faw ñu topp ndigalu yàlla ci warmaal sunuy njiit buñ melee ni ñu war a sunuy njiit bu ñu leen tànnee ba noppi tamit ñu am fullaak fayda gu toll ne di leen teg bët ca bañ leen a boyal ku ci def la ca la mat a def ñu sant ko ca soññ ko ca ku ci def lu mut a def ñu xamal ko ne ko mu ngi li du noonu topp njiit nag rëy na lool yàlla wax na ci lu baree baree bare waaye ndegam du tomb bi moo tax duñ ko mën a waxtaan kon daal yàlla def jàmm yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla nañu yàlla di gën di dëppale xol yi ba eh, ñuy gën a bañ a gis suñu bopp ci jëf yi lii xew ci yeneen réew yi tamit mu musal ñu ci bu baax a baax sàmm suñuy njiit sàmm njiit yi tamit muy jëmale seen xel di gestu ci ñuy gestu ñu jiite fu ñu toll di am yërmande ci ñoom di jéem wàññi seen i jafe-jafe loolu daal mooy li nga xamante ne indi woon naa ko fi ngir ñu weccante ci xalaat maa ngi dégglu bu baax a baax lu ci jub ci eh, ndimbalu yàlla la li ci joonu tamit maa ngi koy jéglu bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa jere jërëjëf serigne bi serigne cheikh mbacke ñang yaakaar ñi doon tewlu xam nañ bu baax ci tem bi jox lako akam lool liñ ci yow ba tax ñu tan la timit jallale nga ko ndax dugg nga ci tam bi xuus ci def ci ay détails leeral ay tomb yu am solo yoo xam ne bu fekkoon ne fexe nañ ba tomb yooyu am kenn ku yilif du jàmbatati ay àq ci ki ko yilif mu mel ne yooyu mën nañ cee tënk nga ci juróom menn mbir wala juróomi mbir bi ci njëkk mooy ak maandu goo xam ne ñi yilif dañ ko amé ci kaw ñi leen yilif nga reelal tamit ak manam moy ko ci na nga jox ko àq jam tol lol bokkut ak yamale ñëwaat tamit wax ci diisoo mana kilif warna fum tollo ak mbir mu muy yëngu mbir mu muy duggu mu ca kam yilif bu fekkee day mbir mo xamne ak ka ñi def ma nga ca manaka ñi amna amna ci yoon kon war nga ca diisoog moom ca lola lol tamit biñ ci duggé leral nga bu baax ñar ñi nga xamne ne am ci diiso li ci nek nga leral ci ne l'islam jox na ko gëdd lol soññe na ci bataay yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam نون لا يرى اي صحابام نون لا جفلانت اك نيوم القران الكريم في موكو ديغال غاليرال باتاي تي ووتو سيرن توبا بي موميت سي كاو ديسو سي لا لالو سي كاو ديسو سي لا تيغي غان اكزامبلير اي مثال يو باري يو خامني سيرن توبا ياغنا ديسو اك دونغام ييغا خامني ньо توك ньо نيكون سي غيناوام nga leralu am solo timit waye kiñi diisul warna don ko bu ñuy diisoo moom tamit laabir ya joxe na doon yoo xam ne na ko nëbbu na ko na ko yalu na ko deey kilifa gay diisoog moom waaye waxuñ kan ngenal comme dañ dañoo diisoog man yi ma am ci conseil naa ko génne ci pénc bi ñëpp yëg ko ñëpp ñëpp xam ko loolu ci bëriwul solo ci amul njariñ nga leeralaat ba tey si ne bokk na ci àq yi nga xam daa gën a lool mooy àqu kaaraange ci façon yépp nag ñi yilif am nañ àq ca ñi leen yilif ñu aar leen ci seen yaram aar leen ci seen der aar leen ci seen alal ba aar leen tax ci seen xalaat maanaa bàyyi xel média bi ak bàyyi xel technologie bi internet beeg yu ñu demee ak télévision yi ñu xool programme bi ñu ci jàllale ba nga xam ne nit ñi duñu am yeneen yoo xam ne dana tourner seeni xalaat ak seeni gis-gis ba tax gis-gis ak xalaat yi ñu waroon yor loolu da koy soppi kon askan wi ba tey wala ñi yilif am nañu àq ci kaw ñu ne yilif ñu sàmmal leen loolu nga ñëwaat ba tey te na bokk na ci àq yi mooy ñi ñi yilifee war nañoo yërëm ñi ñu yilif kon ki yow mi yilif am nga àq ci kaw kili yilif ñeewantu la yërëm la waaye wërta jàpp ne kat am noonam nga wala kuy xeex ak moom nga bu doon ak président bu mu jàpp ne kat képp koo xam daa nekku ci parteem kooka dafa jàpp ne dafa jàmmaarlu ak moom waaye na jàpp ne kay kii maa ko yilif ndax réew mu maam fal ci moom ci réew mi ci la bokk kon ak ñeewante naa ko ëmbal ni ma ëmbale ñi nga xam ne kat Euh, ñoo bokk parti ñeewant loolu tamit doon tom tom bu am sol boo xam ne réew mi soxla na ko lool ba ju toppaat muy ne nga ne bokk na ci àq yi mooy ki yilife war na di foglu di xam fu mu mbir yi ñi mu yilif di leen nemmiku xam ci luñ nekke andi ngi ay misaal yu bari ci rawatan ci dundu Seydina Omar radiyallahu anhu waye saa yoo xamne yow mi yilife xamoo kat ki nga yilif ni mu sonne ni mu néew doole ni mu aajowoo njàng ni mu aajowoo wér gi yaram mustawam ci ci iqtisad ni mu ni mu ni mu jëme kanam yooyu yëpp yaakaar naa yim yello do ko meuna jox nga leral batay bu fekkone ñi ñi yilif ak yi ñen amel jox nañ leen ko kon yan mooy doon ngirte yi yan lay jur ay mbir yu am solo lay doon loo xam mën nga wu tënk rek ci mooy li ñuy tudde développé day daal di am ca muy réew mi day daal jëm kanam ndax warmaalante day am bëggante day am jàmm day am kaaraang day am métier day am ñëpp dañu mën a liggéey kon yaakaar naa yooyu ci sama tënk bu gàtt euh, mooy point yi ëpp solo yi nga xam ne bu ci ne junj nga ko waaye tamit xoos nga ci leeral nga ci ay mbir yu am solo xam naa ngir njëkkanteeg waxtu wi euh, ay laaj am na fi des na ci ñëw insha allah léegi liñ ci bu amee luñ ciy commentaire rek wala lu wala lu nu luñ ciy commentaire mooy leeral nga sa jëmmi wax sa njëlbeen wax ci ne euh, ñi njiilif moom boo waxeek ñoom day mel na danga wax ba tey ci ñi leen ndax ñi ay àq ci ñoom ñoom ñi ñu yilif ñu war koo jot waaye ñi leen yilif ba doon ay war-war yoo xam ne dafa war ci ñoom ñu war koo joxe waaye ba tey leeral nga ci ne kilifa yi ay façon lañ kon comme ay façon lañ moom it ñi ñu yilif ñoom ay façon la ñuy doon donte xëy na benn façon kilifte bi ci sama gis ci nga gën a tërkiis ci nga gën a insister ca mooy ki jiite réew mi wala ki yor bokk lu am solo ci réew mi xeyna kok mu upp solo man ndax moy kilifa gu maggi waye comme ñu ñilif lañ la waxal bu ñepp jàpp ne waxtaan ñom rek ñoko mom waye kep ku ñilif yow ci yenen domaine yi am nga ci wal yow mi yilif ba da ci am nga ci wal bu boobaa ci misal kon borom kërëm bi yilif soxnaam am na ci wal aqiya soxna sa am yello nañ ko ko jox dom ja nga xana baye moko yilif àq ya doom ci am ci jàngal ko ci toppatoo ci wàllu wér-gu-yaramam toppatoo ko ci ba nga xam ne wàllu culture am sax du yàqu ak yu nu demee toppatoo ci wàllu diineem ci wàllu tawxiitam yooyu yépp tamit dugg na ci foofu waaye ba tey ki nga xam ne sax yow yaa ko ngir na da nga ab sëriñam di ko jàngal xam-xam àq yam ci am ci yow ci nga koy leeral masala yi bam leer naañ ñi bala nga koo jàngal laara tamit loolu doon loo xam loo la ba teg ko fu wér ba nga xam ne doo ko jàngal ba ca nga ne ko du woon noonu nii la fekkoon na mu euh, sànq ci tam yooyu yëpp da ciy dugg waaye même sax kiñ yilif nga xam ne niñ ko yilif mooy dafa ñëw cib sëriñ jaayante ak moom jébbal ko boppam kooku ba am na àq yoon ci moom yu taalibe bi am ci moom ca mooy sëriñ bi mu da ko teg ci yoon euh, di ko moytuloo kàmb yi nga xam ne bu fi duggee dana surux ci dafa mën a génn ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon daal du caagee ne xëy na ki jiitu réew mi kese moom la waxal ak ñi mu yilif waaye ba tey képp koo xam doon nga kilif doon nga kilifa ña nga yilif na ngi leen bàyyi xel ci sa àq yooyu jox leen ko ndax bu ñëwee ci xadis abdullah ibn omar radiallahu anhuma bi nekk sahih buxaari xadis bu siiw boobu salaas ndaa kullukum raa wa kullukum mas'ul an raiyati yéen ñépp ay sàmm ngeen ci ku ci nag ku ci ne yamal xiyaam dañ dañ na la laaj la nga doon sàmm ñangi yilif dañ la laaj nang leen yilife woon ak seen ak ndax joxor nga ko wala déet kon loolu lu am solo la waye batay tey waxtan dañ ci déggé ci ne euh li tax tombi am solo moy buñ waxé ak ñi ñu yilif don tey ñooñ ñoñ ñoo moom tem bi ki yilife moom it bu déggé tem bi dana bàyyi xel momit bu baax ci yiko war ndax barana ño xamne kat xeyna na yi def nañ way jàppuñ ne kat ñi ñuy def am nañ ci ñom àq yi kon waxtaan waxtaan am solo waxal moom day waxal ñoña ba ca toppaat euh, ci lu jëm ci walu diiso dang ci wax yu am solo ci njariñam waaye gis naa bokk nañ yu am solo lol ci sagane ko ci sagane ko day jur lu bari mo ñaka diiso dana waral lu bari nga amone ay xel yu bax ba dem sagane len barani mbir yu bari yo xamne yang cey dug bo ci waxtanon ak ñinga yilif ñom man nañ la jox xalaat bu jup bo xamne boko jefandiko ndam nga cey jële lol njëriñ bu am solo la kon ñak diiso day waral ay xel yu am solo nga tek ko nele ne do ko jefandiko lol nak ray xalaat la ci lol baxut ay xalaat dafa war dañ ko war di dundal di ko jëfandikoo ba tey ki ñu yilif li tax diisoo ak moom am solo mooy bis boo diisoo ak moom moom dana am yëg yéegu na yow fonk nga ko ndax nit ñaar bu la fonkut du diisoo ak yow kon ki la yilif bu fekkoon ne mi ngi wàcc ba ci di ñëw di diisoo ak moom donte sax yow boo ko joxee xalaat fekk nga mu am yeneen xalaat waaye yow da nga xam ne ko kii fonk na la ndax koo fonkut doo ñëw wàcc ba ci moom ngay diisoo ak moom kon loolu rek doy na sëkk ba ju toppaat mooy ne yow mi yilif bu fekkoon da nga diisoo ñi nga yilif bu ëllëgee am mbir boo ci esegee boo ci daanoo kenn du la yàdd ndax diisoo woon ak ñi nga ak ak ak ñi nga yilif ñi nga war a diisool bu ëllëgee bu fekkee yàlla daa dogal mbir ma nga diisoon ak ak ñoom ñu jox ci seen xalaat xalaat yëpp mun a doon benn mënuñu jël xalaat yëpp ci min nag waaye ku ci ne yëg na ci boppam bu ëllëgee bu yàlla dogalee kat ñu jël benn xalaat wala nga jël benn xalaat jëfe ko bu yàlla dogalee antiwut kenn du la yàdd ndax diisoo nga ak nit ñi ba nga war a diisoo ak ñoom waaye bu fekkee loolu amul nag moom kaaraan gu ci wala yeddaan gu ci am ci sa kaw rek lay këpp kon loolu yaakaar naa lu am solo la euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon Mm, waxtaan waxtaane am na solo ci am na ay tomb to ay ay ay ay ay laaj yoo xam ne am na fi ca waxtu yi mi ngi njëkkalante ak ñun mbokki mi day laaj ne waaw kii day wax ne xam naa laaj boo xam ne euh, réalité la nee na ndax sunu njiitu réew li ko yoon may euh, am man-manu baal ku ko soob ak donte li ñu koy toppee dafa rëy ndax lii dëppoon akuk maandu wala déet maanaam daaw njiitum réew ndax bokk na ci maandu nit ku ñuy topp lu rëy rëy rëy njiitu réew mi daal ñëw baal ko est-ce que baal googu dëppoon ak maandu wala déet. jërëjëf ñoo ngi rafetlu bu baax a baax kàdd yu nga toftal ci waxtaan wi euh, mottali na mat gi euh, macha allah rafet na lool euh, waxtaan wi dafa doon loo xamante ni tamit dafa ubbeeku. te itam boo ko dee waxtaanee dangay gis ni yëg-yëgu nit ñi da nga leen di laal ndax dafa bari ci yoo xam ne ñu ngi koy dund loolu da ci faral di am. am na mbir yoo xam ne lu mel na ci laaj bi loo xam ne mbiru yoon la mooy njiit li lan la ko charte réew mi may ndax lii mu def dëppoo na ak charte réew mi wala déet foofu la foofu lañuy la xool ndax dëppoo na wala dëppoowut su ko defee. man sama xam-xam jëmut ci wàllu yoon waaye li ma dégg ñi seen xam-xam jëm ci wàllu yoon di wax lépp ñoom dañ naan am na sañ-sañu baale am sañ-sañu baale ci itam dafa am ay charte yoo xamante ni moom la àndal munta baal ku ko soob ci waxtu wu ko soobee dafa am ay charte yu ca yu ca yu ca aju su ko defee nag li rek man ci sama euh, xalaat bu gàtt mooy ni su fekkee ne charte yooyu nga xamante ni moom la yoon wax ni su dajee njiitu réew mi am na sañ-sañu baale su fekkee ne daje na ba muy baale jàpp naa ne foofu amatuñ fi li ñuy wax ndax loolu askanu senegal moo ko ko may su fekkee ne woon bëgg ko loolu dañ koo war a dindi ci charte réew mi su ko defee baale dañ ci loxoom duutu ko man waaye su fekkee ne ma nga fa ñu tënk ko ci ay charte ma ñi ma dégg ñuy wax ñépp ca seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon dañ na am na sañ-sañ bi lañ wax am na sañ-sañ bi léegi nag ya ca laxasum ca suuf yépp yooyu moom yeneen mbir la yooyu yeneen mbir la waaye ci kaw nii daal liy feeñ mel na ni am na sañ-sañ bi lañ wax mel na ni am na sañ bi ndax dafa mel ne charte yi mu waroon a àndal euh, bu yépp daje wut tamit xam naa yu ci ëpp daje na moo tax daanaka ñi seen xam-xam jëm ci yooyu waxuñ ci fànn boobu ñoom yu ci bari politiciens yi daal dégg naa ñoom ñuy wax ñuy wax ñoom moom seeni mbir ñoom leneen la moom loolu moom seeni mbir leneen la daa am yeneen yu koy lal moo tax yooyu duñ ci sore lool ci li ma dégg ci ñi seen xam-xam jëm ci daal loolu lañu wax ñoom ni am na sañ-sañu baale léegi nag euh, ndax ka ñuy euh, ka ñuy baal moo koy sàkkook sàkkuwu ko yu mel noonu li gën a siiw tamit sàkkuwu ko waaw mooy xew-xew yu mujj yii fi amoon ndax xam naa moom la kii di laaj Euh, loolu daal laa ci am lu may wax bëgguma cee sore lool ndax affaire bi dafa sew dafa sew ci itam neexuta dafa sew ci sensible tamit nag teg ci waaw moo tax li ma ñi seen xam-xam kii daal li ma dégg ñoom ñu ciy wax dafa mel ne sañ-sañ bi moom kenn kenn weddilu ko ko am na sañ-sañ bu baale charte yi fa daje su ko defee mu baal ku ko soob loolu nag daal laa ci xam bu dee maandute nag loolu rek la maandute mooy la yoon santaane nga def ko sa kemtulaay kàttan loolu mooy maandute kenn ku ne lam yayoo lay sa àq nga lay sa warteef nga di ko def lay àq nit ñi tamit nga ci joxe sa kemt lay kàttan loolu mooy maandute jërëjëf sëriñ bi kon tontu bi leer na ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu fay la kàttan na la ci yokk sa xam-xam jariñ ba tey nit ñi ci li nga doon waxtaan ak sa yeneen waxtaan yépp ak ci mbokk yi nga xam ne jiitu woon nañ la ak ñuy ñëw ñuy déglu tamit ñu ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu jëriñ leen ñuy jëfee liñ li nga xam ne ñoo ko ñoo ko moom maanaa li ngeen génne ci xam-xam cam jëm ci ñoom ñu jëfe ko yàlla ti bindaleen tiyaabay koo xam ne day sàkku xam-xam kon ñu ngi gërëm ñëpp xanaa rek li ci des mooy dañuy fàttali ne suba sinu jataay mooy min hadyi al quraanil karim tem boobu lañ jël ca mooy njubug alquran wala gindeg alquran ki ñu koy defal doon sëriñ Fàll Buso Cerno mudirul Azhar fii Thiès kon ñu ngi jox ñëpp daje suba ak jàmm insha allah ci waxtu wi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam